neuf gagné mais parce que à partir de 2021 la ñu fi indi coow Adji Sarr cette histoire merdique ngeen baal ma catastrophique seytaan boo xam ni faat na ay sénégalais ñu jël ci ay décisions mauvaises tardel ci Sénégal yàqal ci nit ñi bloqué ci Sénégal perte ci xaalis du n'importe quoi quand des gens comme au pouvoir mm. pour man toute la nation sénégalaise doit dire non mmh. parce que Paasan, ñaari laaj yu mujj ñu tëj li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi sama waxtu jeex na tàkk bi ci jiitu mooy état de santé Ousmane Sonko depuis lors muy hôpital principal ñu ngi naan ba tey mu ngi en réanimation ñi naan état am ngi am ngi amélioré ak yu nu mel ay jege ñaaleem suivre naa ce matin ay dafe mu ne ñoom gisaguñ ko avocat yi rek ñoo koy gis Euh, peut-être ak euh, famem donc mais ñoom partisans yi euh, ak ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ses plus proches collaborateurs ci ci Pastef gisaguñ ko donc lu ni mel la ban déggin lañ ci lañ ci war a mën a am d'autant plus que depuis lors mu ngi hôpital au calme état communiqué wul ci état de santé am ñoom aussi Pastef communiqué tuñu ci li nga xamante moo di dëgg-dëgg état de santé un état responsable en parle un état responsable en parle donne l'information c'est un citoyen sénégalais qui a des droits wala amul benn droit. droits. l'état du Sénégal doit dire aux gens bon Ousmane Sonko va très bien macha allah loolu loolu sax day dalal xel man man dama xamul affaire ba nan la ñuy man daal xaw ma yenn façon di comment comment ces gens réfléchissent c'est-à-dire ñoom daal dëkk bi calme sax dafa mel neexu len dëkk bi am jàmm nit ñi dal daf mel neexu leen ils ils toujours tort. tey jii nii lan moo gën a rafet ne ah Ousmane Sonko quand même euh, il a repris voilà reprendre na euh, mu ngi lekk sa va ça se passe bien quand même il gère ay avocat am ñu permettre ñu génn wax ko gis ko wax ko ay mbokkam génn gis ko wax ko naturellement. wala boog dafa lu nekk ci suuf nit ñi yëgul parce que pour un prisonnier tëdd ci l'hôpital bi nga xam ñu ngi naan deux cent plus par jour depuis lors mu ngi fa tranquille kuy fay deux cent mille kenn kenn kenn kenn waxuñu ko kenn leeraluñu ay ay mbir. kuy fay fekkee état bi moo koy fay ñun sénégalais ñu fekk moom la ñu yokk ci courant beeg yeneen ak yeneen ak yeneen ñu bëgg a faat yokk lépp kilo di tax bu tey bu tey bonbon gaz bii di jar 1500 xam lu mu daan jar. 350. Ah. kilo di tax kilo di tax daan jar 200. waaw ah, da nga demoon di jënd di tax barki marché syndicat di tax rek la doon naan xuli. kilo dita xam nga lu moo jar léegi huit cent francs maanaam voilà un régime qui a sali l'image de ce pays-là du à un niveau tellement fort mais qui est là à, à nous parler yow ngay wax ak nit nit ki ngaa waxal xam ne yow li nga wax du dëgg mais nga nga ne da nga ko ci convaincre quoi ne Sénégalais yi oui ça va aller on va gérer lu ngeen di gérer dem rek incha allah. ci mhm. jàmm ak salaam. oui laaj bu mujj bi concernant Ousmane Sonko dama la ne na. nanu nanu wax sénégalais yi lan mooy situation ah c'est important bëgg nañ xam. papacité bi dañ ñu rassuré nit ñi. ba pare moom mu ko mais mais mais apparemment ils veulent pas apparemment que Ousmane Sonko communiqué sax ak sénégalais yi. laaj laaj bu mujj bi Pape Assane Seck mu ñeel ki nga xamante ni moom moo di Aliou Sané bokk ci Y'en aussi. coordonnateur wu plateforme bi di f donc nag euh, ci fàttali moom euh, ca jong euh, buntu kër Sonko lañ ko jàppee woon ni daal dafa bokk ci ab manifestation non autorisée après nag ñu jàppoon ko ci ba finalement ñu libéré ko. donc nag euh, procureur sàkk woon ci juge bi mu desee na ko ab mandat de dépôt euh, juge bi daal di préféré placer ko sous contrôle judiciaire barki dem yëg nañ ne dem nañ jàpp ko këram devant ses enfants maa ngi dégg ce matin daaw ko jàpp ci kanamu sa gis-gis rapidement euh, mooy soxor bi ma la doon wax après seen xol moo am problème lu mal de ce pays mooy wax naa la ne la Sénégal bu ñuy falati bu ñuy falati nit dañuy xool xolam xool xelam xool comment il fait et cetera APR Benno Bokk Yaakaar dama yaakaar ni man sama gis-gis bu gàtt nit ñi baax ñoo fa ëpp mais am na benn onde buy daw seen biir bu doy waa moo tax toujours damay wax ne président Macky Sall yàlla na ko yàlla kàttanal roof ko baax baax ba mu xool fi mu gën a rafetee mu doxee fa yàlla na ko yàlla dimbali président Macky Sall ba mu dox fi mu gën a rafetee koo xam ne yow yaa ngay dem sa nguur jeex na yaa ngee dem waaye waaye waaye ma bi nit ñi mënuñ ci nekk qu'est-ce que Aliou Sané va faire il a fait du mal à qui personne taxaw ci boori kër Ousmane Sonko saa jóge fi doy na sëñ bi dégagé comme ñoom dégagé la ñuy wax allez oust xulil kilifa bi jógeel fi waay may ñu ah bul yàq liggéey bi ah ah n'est-ce pas ah allez-y allez doy na sëkk mais loolu la kaa waral lan la fa muy jóge la haine pour dirigez des population ba pare vous les détestez mais c'est toujours comme ça la facilité bi ñu am ci dëkk bi pour rey nit ci ay manifestation moo lay won xolu nit ñi fu mu toll seen xol moo baaxul. Mm-hmm. si si Aliou Sané qu'est-ce que et puis mais ndax leen xale yi ñu dugg ngeen jël ko tranquillement foofu la ñuy xamee dayo personnalité hauteur ak classe wala wala ngeen convoqué ko mais au-delà sax mën ngeen ñëw jël si que ne Ousseynou bi pas vous prendre devant les enfants naxal xale yi ñu dugg nga ñëw ñu dem moo gën a rafet mais patience su def lu baax la amul on a mal moi j'ai mal quand je regarde ces gens là je mais ñii yëpp façon nit la ñu te ndeysaan ak ka moo doon metti bu leen ko doon teg li ci ñii di muñ sax bu ñu ko ci muñ bu leen ko doon teg jooy xëcc ngay dégg ay yuuxu sax ngay ngay dégg mais foo fekk ñu mel noonu nag ñoom def lu bon da leen di yomb ci nit ñi APR seet leen yàlla monsieur le président Sall dama la kaa ñaan fii ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngaa aji màkk aji aji waat waaye da aji màkk bu yàggul président da bàyyi nguur gi dem incha allah am nga grandeur bu toll ni nangu li constitution wax bañ a def troisième mandat mu rafet lool waaye léegi qu'est-ce qui se passe même bu dee am nga candidat boo yéene ni moo fi war a toog di Amadou Ba même bu dee soit mais rafetalal mbir mi xanaa boo rafetalee sax libérer prisonniers yi libérer libérer tout en libérant tout le monde peut-être yaakaar mën na am ñu ne ah xëy na kat Amadou Ba euh, influencé na positivement donc voilà on va aller en campagne xëy na nit ñi am yaakaar ci yéen vous continuez à alpaguer à enfermer à embrigader ba pare da ngeen di bëgg a gagner fu ngeen di gagner président bàyyi ce pays ce pays. sa message président libérer dëkk bi. monsieur le président yow yaa war a libérer Sénégalais nous. rendez notre sourire. s'il vous plaît un plaisir de vous recevoir yoo xam nga ni suñu grand nga ci métier bi. donc euh, mbégte la ñu am saa su ne la recevoir fii nga xamante ni sa kër la muy Sénégal 7 TV di la bàyyi nga tàggatoo lu mu la. waaw jërëjëf kontaan na ma. Euh, yéen. du ngeen def comme tubaab yi pare émission ñu fay la. viré la du ngeen def loolu. <laughs> dañ koy def kay. waaw di leen def loolu réew mi daa métti mënuñoo ñaan mënuñoo lepp mënuñoo weyal. madame Dieng lii dégg mënuñu dungu. non ne nii ni pare nga rek moom téléphone na. di leen def ñun kay fi ñuy toog sama téléphone dañ ma war a ne ma ah. Mm. compte bi dara dugg na fa. non dina dugg léegi dina dugg léegi. réew mi daa métti de <laughs> fii. non day dugg fii mais Sénégal c'est tam nag. ah borom kër gi de wax dëgg yàlla nit ñi xam xam nañ ko ci baax. oui waaw loolu daal la ma xam. Diena yow bu la dara metti. jërëjëf en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax di remercier aussi la régie ci liggéey bu am solo bi tuuti Ismaïla Massamba la rédaction de Sénégal 7 Junior pour la coordination yéen ñi nga xamante ne aussi. tout le temps yéen a safoo suñu ay programme ñu ngi leen di remercier bu baax a baax tey di leen jox dig-dégg yeneen i plateau jërë ngeen jëf